lu xew TV seen YouTube sénégalaise da nga bëgg publicité jokkowal ak ñun lu xew TV xibaar yi wér wóor. asalaamualeykum wa rahmatulah waa lu xew TV maa ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax a baax. di leen jox seen wàccuwaay di bëgg a indi sama très modeste contribution ci thème bi waaw ñuy wax affaire nga jëkk a wax ne affaire liggéeyante bi nekk ci piir wujj yi xam nga loolu yëpp li koy indi le plus souvent bu ñu waxee rek dinañ ne ñun dañuy incriminer góor ñi mais ñoom la parce que li li koy indi le plus souvent aawo boo xam ne day bañ ñaareel ak ñaareel boo xam ne dafa ne duma ñëw topp ca euh, aawo ba parce que le plus souvent góor ñi wuti nañu ñaareel remplaçant lañ lay wutal su ko defee yow tamit bu fekkee ne xaw nga gàtt xel bu ñu la takkalee rek nit ñi topp la demal def lii demal ñaan lu demal def lii pour récupérer sa jëkkër ñaareel bi tamit ñëw ne man de damaa bëgg ñëw euh, remplacer carrément aawo bi jëlee ko fa mu jaral la nga dugg ci sëriñ yi di dugal tànk di dugal loxo lu ne nga def ko ba jëlee ko fa aawo bi tamit def des pieds et des mains pour que yow doo ñëw xam nga loolu ça peut poser énormément de problème te wujj moom kenn mënu ko bañ mais góor ñi il faut ñu takk jabar parce que yàlla moo leen ko jox mais ci kaw jox boobu waxuñu leen dëgg gi ñoom takk jabar bi rek lañu indi mais condition yi ngay takkee ak fi ngay teg sa aawa ak yemale gi kooku moom kenn jàngalu ko fi kenn fii ci dëkk bi bu ñu waxantee dëgg rek kuy waaraatee kuy waxi danga naan góor jigéen ñi nañu nanga wujj mais nanga wujj dans quelles da ngay sëy une quarantaine d'années ak sa jëkkër un beau rek sa jëkkër dem takk benn xale bu ndaw rek loolu def ko sa kaw defal ko loo xam ne defal la ko boo ko waxee mu ne chance am la lii la tombé mais c'est pas une raison parce que yow da ngay nekk dans de très mauvaises condition yaag sa njaboot yow aabo bi di galérer pendant une quarantaine d'années ba sa taar wàññeeku ñu dem takk xale bu ndaw jënd kër jox ko jënd oto jox ko di ko defal lu ñu la defal muy voyager di ñëw yow sa xol di dagg mais dans ces conditions bu yow boo gàttee xel te amoo yàlla dimbaliwu la amoo ko la jàppale rek dangay dem ci sëriñ si yàq sa xaalis donte sëriñ si sax du solution parce que sëriñ yu bari su fekkoon ne sax li ñu lay defal day antu mais li ñu lay defal le plus souvent dañ lay nax te dañuy def tout pour te tenir en otage naan la waaw sa wujj bi di boo bàyyee di nga def lii tenir la en otage ngay jël sa alal rek di leen ko jox loolu tamit dafa metti torop torop torop ci jigéen ñi ci aawo yi surtout te góor ñi war nañ ciy bàyyi xel te góor ñi gàddu nañu àq ñoom daal alxuraan leen lañ ci jàngal ba mokkal ko j'ai le droit d'épouser quatre femmes mais épouser quatre femmes dans condition dañ koy teg ci yoon buñ ko doon teg ci yoon mu mu jaadu jigéen ñi tam aawo yi nañu xam ne góor du propriété privée il a le droit d'épouser une autre dame nañ ko sóoraale dafa am jigéen ñoo xam ne aussi dañu gàtt xel dañuy ñëw rek foog ne dañu naan alfinaax foog ne ñoom ñoo moom góor ga war ñoo am wujj te man je me dis xëy na amoon nay temps sax wujj jaroon na ko mais actuellement nii ñu toll wujj jaratu ko parce que góor ñi bu ñu ko seetloo amalatuñu jigéen ñi benn njëriñ bu tax jigéen ñi di reyante vraiment gisatuma lu ko fi jar ba tax jigéen ñi di rey seen bopp bu ñëwee nga gëm yàlla toog bàyyi ko di ko seetaan waaw moom bu ñëwee débalayé toute sa batterie bu sonnee dina toog te góor ñi nañu gëm yàlla ñooy tas kër yi de ñooy jaxase jigéen ñi te xam ne dee dekki am na yàlla am na ñoom itamit nañu xool bu baax a baax a baax li ñuy def waaw en deuxième lieu nga wax aussi affaire xeebaate xam nga loolu Sénégal dafa am benn réalité bu fi am qu'on le veuille ou pas pour jigéen ëppale jëkkëram sëy boobu normal c'est très rare parce que même jigéen ji bu fekkee ne bëgg na jëkkëram ay mbokkam duñ ko ci bàyyi da ngay gis koo xam ne euh, il a un modeste emploi góor jël jabaram takk ko amul dara mu di ko fayal mais jabar jooju bés bu yeggee à un certain niveau rek day dal di commencé xeeb di kër ji ay mbokkam di ko xeebloo ba nga xam ne sëy yooyu tamit nit ñi tamit nañuy xool bu baax ni ñuy sëyee ak ni ñuy àndee dëgg la xeebaate du yoon mais ku nekk seetal ka nga xam ne bu ngeen àndee lu yoo yebeel ak xeebaate du ci am parce que jigéen saa yu ëppee góor niveau loolu moom dañ koy wax te dee c'est la triste réalité pour sëy boobu dem rek problème la jigéen ji dina dem ba xeeb jëkkër ji ay jabar yaayam ki yëpp xeeb jëkkër ji ba nga xam ne euh, genre ménage yooyu lay indi problème donte nag xeebaate ak yabaate ak sous-estimer nit ki jaaduwul benn yoon parce que nous sommes tous égaux devant Dieu waaye ne sama doom lii la cadre de banque la elle ceci elle cela un ouvrier wala un nangam du ko takk tamit loolu tamit jaaduwul bien que tamit buñ ko defee tamit nañ waxante dëgg tamit dëgg moom bu jotee nañ ko wax mariage yooyu le plus souvent duy dem même boo ko fayalee étude am ba mu yegg à un certain niveau mariage boobu toujours day kase bu à la fin loolu la nit ñi constaté te muy une triste réalité. waaw kantaa nag yootu loo xam ne da nga bëgg kut ko kut mu am gis nga jullit day gëm yàlla tous les yàlla nee nañu doo ko ñaan mukk mu rejeté ko mais daf la koy defal leneen te nit ñi bu ñu bëggee dara dañuy acharné wu mu jaral leen lu ne te fekk loolu du gën si yow. comme ni nga ko waxee rek nit am na bagam di traversé tali dee wala mu dem sorti dee nit di ñaan doom pendant des années yàlla joxu ko ko yàlla xam na lan moo tax joxuloo ko nga def kut ku kut ba am ko boo ko amee doo ko fekkee moo tax daal nañ delluwaat suñu bopp si yàlla lu ñuy ñaan ci àddina te yàlla joxuñu ko nañ gëm yàlla ne xëy na gënul ci ñun parce que yàlla dañu gëm ne delloowul benn ñaan mais day seet loo xam ne ngay ñaan oto mu bañ la may oto nga ne ah yàlla de bëgg naa mu may may ma oto oto ba ñëw nga def ci choc dee xam nga kon loolu soo yëgoon bañ a am oto ba moo koy gën bu dee doom da ngay ñaan même chose bu dee examen même chose nañ bàyyi suñu bopp ak yàlla lum ñu jox rek ñu xam ne loolu la ñu tànnal te moo gën ci ñun yàlla suñu tànnalee rek duñu sonn mais mu jaral la sëriñ boo ko xalaat nga dem fa di def des pieds et des mains pour am ko loolu aussi nañ ko bàyyi parce que la la li baax si yow yàlla kese kese moo ko xam moo tax booy ñaan danga naan li gën ci man yàlla na ko yàlla def lii di ñëw bu naree ñëw te jiguma bu mu ñëw gis nga ménage bi déjà mu ngi nii kii ñu ñoom ñaan ñoom ñu ngi ci am coono yoo xam ne bu ñu xamoon sax bañ ko def mooy gën. waa quatrième point bi ngay wax ne ndaxte kii waroon na seeti wuy juy waru fa woon a dem comme déjà yëf yi demee na ni mu demee te euh, kële mu nga dans ces conditions là lan la fay wuti amul benn droit di ko seeti te xam naa ne bu ko fu fekkee moom ba ñu gisante moom problème dina am moom ci biir kii boobu parce que amul benn droit dem di ko seeti parce que euh, ça se voit que euh, première femme bi gobewu ko moo tax muy def lii yëpp bu soit moo ko tey xaw ma tey ko wala wér na wala wérul mais warul dem di ko seeti dans ces conditions parce que nous sommes en, au Sénégal particulièrement en Afrique nag te seeti seeti sa wujj dafa am nu muy demee mais ñu takk ko yow déjà nuyonteegu leen defagu leen dara nga bëgg a dem di ko seeti mais seeti boobu moom ci boppam lan la ci jublu ak pour lan la amul droit seeti ko te bu ko seetee nag lu ne mun na cee juddu waaw ñu yem foofu ba ci kanam c'est c'était notre modeste contribution